doomam euh, bu tolloon itam ci sept ans ba daal di euh, faat euh, bakkanam malade mental la encore une fois ki lay di le président de l'Assemblée di wuyoo ci turu Ansoumana Dione di ñaawlu bu baax boobule jëf di wax ni actuellement malade mentaux yi nekk nañu problème bu mag ci population bi ndax population bi mënatuñu am sécurité ndax ab malade mental kat ku mu jàpp ba dóor la yaakaaruma ni yoon dina mën ci ci moom dara lu dul yóbbu ko rek ci asile yi daal di a la rue et que mu jël ay responsabilités nu mu gën a gaawee parce que euh, nee na fan yi ñu génn rek amul benn jour bu ñu génn rek te duñu wax ni que am na ab malade mental boo xam ne dóor na kenn ba gaañ ko mbaa mu rey ko. surtout surtout bu ñu amee ay ay doom yu ndaw tamit. dañuy mm-hmm. gën a dañuy gën a bàyyi xel ci loolu parce que ku àndut ak xelam bul xam lan lan la mën a la mën a def. Mm-hmm. déjà euh, lii firndeel la moom doon na doom bu am juróom-ñaari at. ba mm-hmm. rey ko ba ko waaw ñu ni bu fekkee àndul ak xelam rek mhm. des fois sax nga gis nit ku ni cocc def mbir mhm. ñu yóbbu ko ay mbokkam lijjanti ay kayitu dof mhm. ñu wérul ñu bàyyi ko mais nag dafa bari ay façon bu fekkee nekkul ko agressif mais nag bu fekkee koo xam ne day yor ngànnaay di dóore mbaa muy def dara kooku war nañu bërëb boo xam ni ñoo war nañ leen a mën a yóbbu foofu xam nga ba ba duñu duñu kàllankoor kenn bërki mm-hmm. démb benn mm-hmm. benn benn benn malade mental boo xam ne foofu la nekk mais dafa agressif mm-hmm. day dóoree day defee lu ne foofu la doon toog gars yi jël ko yóbbu ko hôpital mu ñëwaat ñu yóbbu ko fu ne ñu ñëwaat mais xam nga ñoo ko mujjee jël si mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy wër di sang ñi nga xam seen xel te ma indi woon fi daal Ndakaar ñoom ko te bi koy jël dafa bañ jël ko yeb ko ci oto yóbbu mooy li ma doon wax rek nga xam ne ñoom seen ànd ñoog seen xel ñu nekk ci mbedd bi mhm. il faut ñu jéem a xool benn kër boo xam ne dañ koy tabax pour ñoom mhm. teg leen fa wut ñi nga xam ne daf dañ leen di toppatoo bu boobaa peut-être yenn yenn yenn yenn kaay dina xaw surtout surtout mhm. Mouhamed ci xombol euh, la xewee site internet yëpp daal di koy xëyee muy xale bi lay di wuyoo ci tuxu Mouhamed Rasoul Aydara euh, toll ci euh, saison nekk en classe de seconde S moom nag moo daal day defar benn robot bi nga xamante ne anti Covid la bi nga xam ne aussi day génne xam ne moo di gel waaye tamit day sensibiliser ci li nga xamante ne moo di Covid 19 Myriam mu nekk loo xam ne c'est charmant ndax xale bi saison dong la am nee moom dafa profiter ci li nga xam ne moo di période bi nga xam ne élèves yi demuñu école au lieu xam ne moom la moromam yi réfléchir ci naka la mën a indee solution pour xeex li nga xam ne euh, moo di doomu jàngoro bi la ci di Covid 19 ci noonu la daal di créé boobu les robots moom nag nee na euh, plus tard bëgg na defar li nga xamante ne moo di ay drone ak yu ni mel ndax vraiment dafa bëgg a li nga xam ne moo di la population sénégalaise waaye tamit le monde entier ndax am na xam-xam bi nga xam ne yàlla may na ko waaye bu ko état bi tamit jàppale dina daal di percer bu baax et dina def yu bëri yu mel nii euh, pour mm-hmm. jàppale képp koo xam ne rek doomu aadama aadama jaay mu nekk nag acte boo xam neex nañu bëri encore une fois site internet ñëpp ko ko jàppale mhm. moom il va faire des merveilles macha mhm. allah parce que moom ku ko def ku ne rek mhm. macha allah yow je pense que yow moom dara tëwu la amoon na fële amoon na ci Nigéria defe naa sax doon nga ma ko wax mooy xale yi nga xam ni dañ doon def ay wàllu effets spéciaux yor ordinateur boo xam ni ordinateur bu ndaw la filmer ak seen téléphone di def ay effets yu doy waar ci la leen waa Nollywood gis vidéo yi récupérer leen utal leen ay kanam macha allah ñun sax ñu ngi ko doon fësal fii sax mbay ci ah. suñu rubrique bi nga xamante moo tuddoon Made in Galsen mhm. nga te am mhm. talent mhm. dañ ko doon wane fii nii ci biir seen show mais également ci rendez-vous également mais talent yooyu noonu il faut ñu jàppale leen comme li kii wax que état beeg yooyu il faut ñuy jàppale ñoom parce bu ñu leen jàppalewul ñi ci biti ñooy ñëw jël leen coppati leen yóbbu leen dañ leen exploité rek niñ ko ci amee mu mën lii am na ci ay moroomam ak ay moroomam ak ay yoo xam mën nañ lii am ñoo xam ne mën nañ leneen ak leneen mm-hmm. donc il faut état bi récupérer ñooñu jàppale leen ñu ñu li nga xam ne moom nekk si ñoom mm-hmm. sinon ñeneen ñooy ñëw récupérer leen yóbbu leen ñu euh, euh, incendie euh, bu am seeni dimanche seen parents yi nag dañoo génnoon ba pare daal di teg ab diwlin ci taal diwlin boobu moo daal di explosé seen maam rek lañ fa dese woon maam ji ba mu leen di jéem a euh, sauver ci la daal day euh, inconsciente moom itam actuellement mu ngi aux urgences mu nekk lu méttee métti Myriam ay xale ndaw 3 ans ak 8 mois. Mhm. ca kër dugub. Mhm. parents yi aussi di veillé waat bu baax a baax a baax ci lu ñu def voilà bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi gaz bu tàkk génn dem bàyyi ko ci ay xale ndaw quand même c'est mhm. bëri na torop. ci dëkk bi. Mhm, mhm. également. Mhm. Euh, bu ma Kaolack la damay bañ damay bañ a juum mais am na marché marché bu bu bu tàkk marché Kaolack. bu tàkk fan yi ñu génn donc je pense que ne war nañ ci bàyyi xel surtout euh, ak taw bi euh, électricité bi àndul ndox ak loolu àndul donc nañ ko nañ ci bàyyi xel defe naa ne bu ñu ko defee dinañ mën a moytu yu ni mel et puis di leen jaale également seen ay famille ay ayca voilà Mouhamed le dernier point ci Russie la xewoon ñu ngi ko fi doon wax semaine bee ñu génn étudiant bi nga xam ne train bi moo ko daal de fauché ba mu ñàkk ci bakkanam ba ay parents am di demander bu Sénégal à ce que ñu rapatrier corps bi ñoom nag indil nañ ci xel bu daal ndax corps bi dina egsi tey ci Dakar à 18 ñu ñuy xamal ne que étudiant boobu mu ngi doon wuyoo ci turu Idrissa Alfouseyni Lam dinañ ko denc fi nga xam ne moo di Fouta et que accident bi bu nga xewoon le 26 juillet dernier euh, à Russie Mouhamed mu nekk nag bonne nouvelle ci ay parents bi ñu jotee ci corps bi mm. waaye tamit ñu leen ni masawaat bu baax a baax ndax sa doom tukki ba pare ñàkk fa bakkanam te gisoo ko doon lu metti doon lu metti donc ñu leen di masawu di leen ko jaalewaat bu baax a baax donc je pense que ni c'est une chose bu corps bi ñëwee mm-hmm. pour que ñoom ci boppam ñu mun ko ko jébbal boromam donc ñu ngi koy ñaanal euh, fi mu jëm gënal ko fuuf fi mu fi mu amiin loolu moo nekkoon information